Cheikh Muhammadul Faadal mooy falfale sëñ Fallu mooy seet ko neex mu fal la du xotti saatir bàyyi Cheikh Abdou Fatah du tas yaakaar du wàjji laaj ku may la nga géejal sëñ Fallu xannuyu la moo sañ ci ndindi sëñ Fallou di def di dindi sëñ Fallou ku mu gindi xamal la réew me a ah, bokk yi noo noo ngi fii ci ndindi ndindi kon bis baa ngoog xam ngeen ni ki ñu dalal nag di as di nit ku baax muy sëñ Fallou Ndiaye di bàyyi Galas Ndiaye dëkk Ndiayeen ci Mbàkke diggante waa Ndiayeen ak sëñ Fallou ñëpp a ko xam sëñ Fallou moo fonk Mbàkke bëgg Mbàkke bagg bokk yi moom Cheikh Amadou Fadal at mu jot muy taxawal journée culturelle Serigne Fallou Sëñ Fallou bisam bisum ñëpp la ndax Sëñ Fallou moo toog ci jal bi rek ne feeg yéen ma gis di gis sëñ Bamba bu ngeen ma noppi gis di gis doomi sëñ Bamba sëñ Fallou la woo bu sa Baye Galas gor bëgg sëñ Fallou nag yemalul sëñ Fallou lenn lenn lenn. tax at mu jot mu taxawal journée culturelle Cheikh Mamadou Fadal le 18 janvier bis bi daal a ngoog kenn wooteel bis daal ku jàq woo ko moom sëñ Fallu waa jaa ngoog Cheikh Mamadou Fadal fadlun asimun serifun farisun fasilun mbàkkeng bu soobe la kookoy siñ Fallu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan fii ci seen chaîne YouTube Ndindy Actu tey nag ñu ñëwaat ak seen ganu bis bi euh, teewal fii voilà remplacé fi Serigne Mame Thierno Mbacke mi nga xam ne mu doon def émission ganu bis bi tey nag ñu ngi dalal suñu xarit suñu soppe Cheikh Mamadou Fadel Ndiaye moom lañ bëgg a tey ci seen ganu bis bi ci wàccaayu ngir na journée Cheikh Mamadou Fadel bee ñu amal ca Mbacke tombeek samedi 18 janvier 2020 kon dañ koy dalal mu nuyoog mbokk yi su ko defee ñu doog dugg ci waxtaan bi bisimilah. alhamdulilah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital sëriñ Muntaxa di ko ñaan mu yàgg fi teewee di ci teg sëriñ Aboom sëriñ Fàllu ak mbooleem njaboot sëriñ Fàllu yëpp ñaan ñu yàgg fi ñu ngi lay ñu ngi lay fay nuyu bu baax baax di kontaan ci dalal gi waaye di nuyu eh, ki ñu may opportunité opportunité ba ñu mën a toog fii mën a lu bëree bëri muy soxna Ndey suñu du Fata di kilifa kër gi tey ñaan suñu borom def ci barke bu baax a baax mu dem ba bokk ci télé yi ñu gën a siifu ci àdduna bi jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal ñoo ngi lay dolli nuyu bu baax kaddu yi am na solo bu baax Cheikh Mamadou Fadal bu ñu bëggoon ñëw ci bis bi maam lan lan mooy lan mooy lan mooy soir bis bi maanaam bis bi lan moo tax Cheikh Mamadou Fadal di sant Serigne Fallou di woote journée Cheikh Mamadou Fadal bu buñ ci bëggoon a xam yenn yi xam naa sax di laaj Serigne Fallou lu mu la defal moom euh, erreur gënu ko rëy waaye lan moo waral lan moo waral Cheikh Mamadou Fadal di def bis bi journée journée Cheikh Mamadou Fadal bi. jërëjëf sëriñ bi laaj nga laaj gu am importance eh, bokk na ci li tax ñu ko ñu ñu di ko def mooy mooy sant day delluwaat ci sant rek ndax suñu borom dafa wax ne ku sant ma la lépp it dafa duggaat ci ci ak sant rek eh, bokk na ci suñu cofeel ci suñ fàllu eh, ak bëgguñ ko bëgg ak it di xeeñtu lu baax bokk na ci li tax ñuy def bis bi waaye bokk na ci it mooy daje di def ñaan ndax euh, suñu borom dafa wax ñaan mooy ngànnaayu jullit waaw kon bo muy ñaareel bi ndax ginnaaw bi ñu amee cofeel ci moom di ko def ngir sant ne suñu borom a ko digle bi ci desit mooy ñaan ngir daje ci di ci jàng alxuraan di ci def lu baax di ci def na bi nabi di ci ñaan loolu it lu am solo la waaye bokk na ci li li li nga xam ne moom moo ñu gën a amal importance mooy mooy li nga xam ne moom la ñuy wax mooy développement loolu nag bu ma ko waxee moom day day neex a comprendre waaye. mën naa nekk parce que nit ñi bi ñuy bu ñuy wax développement ak économie ñoom dañuy jàpp ne ab xaalis la boo xam ne dañ la koy jox nga def ko ci sa poos bala bala ngaa loolu la ñëpp jàpp waaye bala ngaa xamoon ne loolu loolu baax na waaye des na li lépp importance mooy nit ki nga defar jikkoom xamal ko yar ko jàngal ko mooy tax tey jii boo ko joxoon lu mel ni nga dénk ko alal réew mi wala nga dénk ko leneen ak leneen wala nga jox ko benn benn fonction mu xam na am cooy doxee fekk defal nga jikkoom bu njëkk bis yi nag buñ ci buñ ci dajee dañ ci indi ay ay thèmes yu am important yoo xamante ni dafa am comi comité boo xam ne ñoom ñoo koy saytu ay boroom xam-xam naa ci tudd kenn ku sëñ Cheikh Naam mu sëñ Modou Habib ak sëñ Mamor Mbacke am di nga bind nañ ay téere yu bëri bëri man affaire thèmes yi du ma du ma ci wax ñoom soog ànd ñoom ñooy dajee daan na jël nañ nangam nangam la ñuy waxtaane nangam la ñu nga xamante ne année bi gis nañ ñu ñëpp ñu ngi dëgg ma xës day sëñ ndaw ñi jëm ci maanaam fonk fonkat ko loolu daal léegi nag ñoom ñu ñëw ne dañoo fas yéene waxtaane nan la ñu mën a gën a jëriñoo ci xës day sëriñ bi parce que yéen a ko waxtaane bi ci des boo passé boo xoolee yi année yi passé it da nga gis ne am na année boo xam ne sëñ Fallou Bousso Tamba moo doon moo doon def waxtaan mi ngi doon waxtaane eh, ndaw li ban responsabilité la xale am eh, ci économie réew mi akum daram daan nag daal di indi sëñ Fall nag ni bi ci taxawee woon te te nag waxtaan yooyu benn da ci jànge ragal yàlla ba tax nga mën a sàmm alal doomu aadama yi da ci jànge it eh, ragal yàlla ba tax nga mën a fonk sa diine da nga ci jànge ak doylu da ci jànge ak doylu jàng ci ak maanu kon kon mm, di daje yi ñu ci daje di ci waxtaan loolu am solo la waaw ci gàttal la loolu lañ la ci mën a ñu déggee sa wax mel na ne mel na ne bis bi moom du bisub Cheikh Mamadou Fadel kese waaye bisub yoon murid gépp la bisub lislaam gépp la ñu ngi fàttali bis bi nag ñu ngi koy amalee Mbàkke en face gendarmerie bi samedi 18 janvier 2020 ñu dara jaale ko Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Mamadou Fadel ci ci loolu ndax mën nañoo xam Cheikh Mamadou Fadel bis bi kañ la ko kañ la ko commencé def ak ndax ndax fi mu koy defee nii rek fi la ko fi la ko fi la ko maam mooy li foofu rek la ko am na yeneen lieu yoo xam ne fa fa nga ko daan defee waaw. bi ci njëkk mooy eh, mën naa njëkk ci question bu mujj bi mooy fi ñu ko daan defee eh, daan nañ ko defee théâtre verdure nga xam ne foofu lañ ko daan defee nga xam ne salle la boo xamante ni am na am na sonorisation am na éclairage am na toilette am na lépp ñu du ko defee foofu. après nag ginnaaw bi lañu dem bu mujj ndax gis nañ foofu eh, lañ lañ fa jubloon di ko fa defee dañ daan gis nit ñi dafa ñëw dafa organiser ay ay soirée nangam ak nangam léegi nag ñun ñu bëggoon def def ñu bëggoon a xamal nit ñi ne nekkul ne place bu baax bu ne rek ñu caaxaankat ko moom moo tax ñu ñëw fa def fa ñaari yoon ba ñett ñu bàyyi ko faa génne ñu bàyyi ko faa defee defe ko fi dend ak moom ci mbedd bi mu dendal waaye te buñ ci bu buñ ñëwee dañuy boole ba rek dañu dañuy jël ci théâtre bi pour pour bañ bis boobu am lu ci ciy déranger boole ko fu ñu koy defee eh, bi ci des it eh, da ngay gis ñoo xamante ni dañ naan ñi jàpp ci liggéey bi dañ naan yow de bu ñu sañoon yow bis bi da ngay bàyyi ñoo koy defee théâtre weddi parce que boo xoolee lañ nga fay fay du mat cent mille francs te base yi ngay def ak yooyu dalay coûter ay quatre cent mille ak yooyu kon man ngay jël théâtre weddi bi ngir mu gën a moyen waaye mbirum sëñ Fall moom gëm-gëm bi ñu ci am eh, waroo wootal sëñ bi li li ñu sëñ Tuubaa di wax ci euh, kaanaaqan di wax ne di wax ne ki yées ci nit ñi mooy kii woote ci turu diine ba noppi ngir lu maam loolu dañ koy wax dañ koy ñun dañ koy bàyyi xel baax a baax rus nañoo woote sëñ bi ba nit ñi wuy si ñu ñu jël ñuy jël li ñuy woote sëñ bi di ko def feneen biñ demee ba xam ne moom li ñuy dikkal ci bis bi ci ci borom bis boo ko fi indi dañuy fexe nag mu méngoog jamono taaru loolu tax ñu bàyyi foofu te dañ koy luyee ba noppi bàyyi ko noonu ba noppi jël fële di ko def waa bu dee waaw bee dañ koy bàyyi noonu bu ñu amee ñu war a dalal def ay barabu xéwlukaay ak yooyu léegi fee nag ñu ñu def ay bâche yu mucc ay man fay def wax maam kon daal mën nañoo dégg ni kon bis dafa gën a yokk maam da ngeen boole bâche bi ñu defee cérémonie bi ak ak ak bi nga ko defee macha allah macha allah loolu am na solo dee suñu sama mii nag maanaam lépp ñu lépp lu ñu def rek daa am ñoo xam dañ leen ci dañ leen ci laaj xalaat ndax man man maa feeñ rek waaye kuréel gu yaatu la am na ñu nekk Mbàkke ñoo xamante ni bu ma waree dem fenn ci Mbàkke ñoom lay àndal waaye am na ñu nekk Touba mais affaire bi yaatu na lool am na it ñu nekk Dakar ñoo ma nekkee Dakar lu ma ci dox ñoom laa koy kon mbirum sëñ. kon war a yaatu. ah fédération la wala fédération wala wala daayira. non dañ ko def benn comité rek. ah euh, di ñaan képp koo xam ne daal mbirum sëñ Fallu ñor la ciy tàllal loxo waaw ndax ñun gëm-gëm bi ñu ci defamee bu ñu demoon ba nekkatuñ ci it euh, ñi ne di ko doxal lool lool lool lool ñi ñuy àndal liggéey bi ñoom xam nañ lool bu dee sëñ Abdou Samad mii nag eh, ñun ci suñu gëm-gëm bopp mooy comme bis bi dafa am dafa doon bisu ñaan eh, ñun dañuy jël eh, li ginnaaw bi ñu jiitalee sëñ Touba ak sëñ Fallou dafa am bis bi ci nuñ ko séddalee mooy sëñ Fallou mooy priorité bi léegi nag bu ñuy bu ñuy fàttaliku sëñ Fallou am na njaboot goo xamante ni nekkatuñu fi ci saayir ñooñu nag am na lu ñu fi def ñooñu nag war nañ leen a mën a waxtaanee bu baax a baax a baax waaw ndax am na sama benn xarit ma ku bëgg suñu Fallu la bi ma bi mu ko joxee carte bi bi mu xoolee dina ah, man de suñu Abdou Samad mi man xawmoon ne doomi suñu Fallu la dama koy dégg waaye jotuma ko woon a xam waaw waaw loolu la jublu ñu indiwaat ñooñu ñu ngi ko commencé woon ci mm, suñ jirim suñ Fallu suñu sëriñ def am na année boo moom lañ ko def ñëw ci suñ Modou Boussa Dieng ñëw ci suñ Alaaj Baara eh, ñu ñëw ci suñ Alaaj Baara ñëw ci suñ Abdou suñ Abdou Samad mii nga xam noonu lañ ko toppee ñëw ñëw daaw ñëwoon ci soxna Amy Cheikh mu sëñ Fall te ñun ñëpp ay doomi sëñ Fall lañ yoo xamante ni maam yu marqué seen jamono noonu lañ koy toppee nag gëm-gëm bi ñu am na ñu ko toppee ba ñi nga xamante ni xam nañ leen mat na ñu doog a changé beneen méthode te it e, niñ ko niñ ko jaglelee sëñ Fall it comme mbàkk gi koy defee dafa ay réalité mooy dëkku sëñ Mamour Diarra la moo tax ñu at mu jot ñu leen ci sedd di leen jox ak cër boo xam def daf ciy am. bii jàll ñi ngi ko ñi ngi ci doon rendre hommage sëñ Moustapha Beto surtout sëñ Mamour Diarra la ak sëñ Modou Assoog ak sëñ Abdou Wudo Bisa ak ñooñu ren jii nag ñu jël sëñ Abdou Khafour nga xamante ni moom taxawaay yu am am solo daf ko def Mbàkke bokk na ci kër Mamour Diarra gi moom bi mu toogee xalifa wala ko defaraat tabaxaat ko mu mucc ay ñu du ko ci rendre hommage bu baax a baax a baax fas yéene fas yéene ko ci ñaar noonu la la daan doxee ci sëñ Fall def ci am cër ak sëñ Mamour Diarra borom Saam te ku ne xam ne diggante ak sëñ Fallou sëñ Mamour euh, diggante bu yàgg la di ci fàttali ko it sëñ Cheikh Darou Rahman ndax moom it dafa amoon kóllëre ak suñu wéyjur moo tax ren ji fas yéene ko ci ñaanalaale loolu daal moom tënk bi. Amadou laare li am na solo lool di leen fàttali rek bés bi mi ngi mi ngi doon samedi 18 janvier 2020 à Mbacké en face gendarmerie bi. ñu ci ñu ñu dara jaale ko Cheikh Abdou Samad Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal di di di ci rendre hommage Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman ak Serigne Abdou Khafour Mbacke kon daal bis bi mi ngi noonu. ñu ñëwaat tamit ci ñu gis fii ci ci affiche bi ñu gis yi euh, remise de prix Cheikh Amadou Fadal au distingué léegi lan moo waral loolu lan moo waral remise de prix bi. loolu dañuy dañ bi bi gaa bi comité bi dajee dañoo wax ne nañ fexe ba di ci comme bi si mel nii ay mbooloo dañuy daje. ak ay kilifa yu bëree bëri nañ fexe ba ñi nga xamante ni dañoo ne ci dëkk bi ñu njëkk ci di leen feeñal ngir nit ñi mën leen a gën a roy ngir seen taxawaay yu rafet moo xam ñuy taxaw ci diine la euh, moo xam ñi taxaw ci social la walla ci enseignant wala ci deme noonu nga at mu jotee dañuy tànn koo xamante ni day jàmbaare ca la mu nekk ñu wan ko mbooloo mi jàllale ko ci euh, télévision yi ngir bëgg nit ñi xam ne kii kat. modèle la boo xam ne war nañ ca mën a roy nga xam ne maa ngi fàttaliku bi ñu bi ñu ko tuddee suñu bu sa jàng Baye Abdou Diouf xasida mii doon jàng boobu moom lañ man maa dem ba këram ne ko dañ la jëbëgg a sargal delloo la ci njukkal bu baax ndax li nga liggéey suñ tubaab ñu defal benn documentaire boo xam bi mu ñëwee bi ñu ko tegalee maanaam daf ko jaaxal daal mu kontaan ci lool ci la ma ne man daal lii laa bëgg moom ku may ku may fàttaliku da ngay fi mu ko defee sama dund ay wuroo bàyyi ba ma ba ma génn àdduna nga dem fàttaliku nga xam ci at moom sax ci ci ci la noppali ko nga xamante ni noonu lañ ko defee woon eh, professeur assan Ndiaye nga xamante ni bokkoon na ci ki moo nekk bokk na ci jàngalekat yi dàq jàngale ci Sénégal jëloon grand prix bi en deux mille deux mille dix sept wax ma deux mille moom it indi woon nañ ko delloo ko ci njukkal bu baax a baax a baax waaw eh, am na ci ko xam it la woon lool nekkoon ndakk nga xam foo ko gis nag moom benn nga ko ci daayira wala mu ne ci liggéey bi suñ ko bàyyi nga koy gis. moom it sargawal nañ ko ci delloo ko ci njukkal bu baax parce que loolu da leen di encouragé ngir ñu xam ne li ñu nekk baax parce que ñi dañuy def ay caaxaan it seen caaxaan yi ñoom danañ ko valoriser ba mu nu lu baax te rafet ñu dëgg noonu moo tax it ñu jàpp nañu li ñu ne dara gënu ko wax ñuy tànn jàmbaar yi di leen ci delloo njukkal bu baax a baax di leen ci sargal mm-hmm. la jërëjëf Sëñ Fallu leeral yi am na solo lool ñu gis ni yaakaar naa da nga ni at mu njëkk ma sëñ euh, nu ngeexati suñ jëlim suñ Fall ngeen ko tuddee bi ci topp Cheikh Mamadou Moustapha Falilou bi ngeen tuddee ngeen ci ngeen ci ngeen sargale Baye Abdou Diouf na tamit am na yeneen yeneen jàngat yoo xam ne suñ Moudou Mamoun Jong nga xam ne ay jàngat mag la ñu woon suñ suñ suñ Moussa Diop bi incha allah. képp koo xam daal yaa yaa lu baax ci diina ji rek ñu ngi la ci bàyyi xel parce que gisoon nañ ko mel ne ni ñu ko defee ci diine noonu lañ ko defee ci côté social gis nañ ko mel ne Mamadou Moulane Gueye nga xam ne moom moo fexe ba ñëw Mbacke créé benn école nga xam ne moom école boobu bu amutoon ci Mbacke mën naa jàpp ne eh, éducation bi ni mu war a dëgg mën naa des bi ñu gisee loolu dem nañ delloo ko jukkal te yàlla suñu wàllu tax ngir ngir ngir taxawaayam boobu noonu lañ koy yaatale ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci diine ak ñi jàng xasida ak ñu ci nekk waaw nga kuñ ko defee dañuy bàyyi ba ba mu jege si rek ñu daal la koy wax waaw am sax dañu leen bàyyi bañ agsi ci bis ba ñu ñu annoncé leen daal liggéey suñu Fallu daal hmm. loolu am na solo lool kon daal bis bi mën nañu jàpp ni bisub bisub Cheikh Mamadou Fall la bisub alquran la bisub social la boole ci. ñu ngi ko ñu ngi ko mënee tamit soxna ajaratu ajaratu soxna soxna Khady Sall madame Guèye moom lañ moom lañ ko moom lañ ko mënee parrain bi di Cheikh Abdou moom Cheikh Mamadou Fadal kon daal bis baa ngi noonu mbokk yi xam naa dañuy jox Cheikh Mamadou Fadal kàddu gu rek su ko defee ñu mën a yëkkati jotaay bi ndax waxtu wi xoj nañu ban kàddu gu mujj gi lan lay doon. xanaa kàddu yi sant rek di comme ni ma ko waxee woon rek di sant soxna Ndey mi ñu may opportunité ba ñu mën a leeral lii ndax bokk na ci liggéeyam Sëñ Fall waaw di ndax lii mm, daf ci bokk ci liggéeyam Sëñ Fall la bokk rek lu koy gën a yaatal da koy gën a baaxal waaw comme daal di di sant ñëpp rek di ñaanit lépp Sëñ Fall mi tax ñu koy def yàlla nañ ci dajee ak ak ngërëmam eh, te ñu am ci ay tawfeex yu yaato yaatu rek barke Sëñ Tuubaa di jox rendez-vous ñëpp rek. di ñaan ak mu dem ba bokk ci yi gën a rëy ci àdduna bi ñu di xel ci barke Sëñ Fallu kon daal bis baa ngi noonu war a doon samedi 18 janvier 2020 fee ca Mbacké en face gendarmerie bi ñu da ñu darajaale ko Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Mamadou Fadal di ci rendre hommage Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahman ak Serigne Abdou Khafour Mbacké marraine bi di ajaratu Soxna Xadi Soxna Xadi Sall Maram Gueye kon daal Cheikh Mamadou Fadal nee na mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwut kenn képp koo xam ne Cheikh Mamadou Fadal sab soppi la wala nga yaakaar ko mbaa nga yaakaar Serigne Touba ndax bis bi bisub Cheikh Mamadou la ñoo ngi ñaan képp ku fa teew yàlla na Serigne Touba taxaw te sàmm la ñoo ngi ñaan ñëpp ñoo ngi ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di gërëm bu baax ñu ki ñu àndoon ci ci caméra bi soxna Serigne Serigne Hassane ak mboolem ñu ñu suivre ci seen YouTube asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bis bi daal a ngoog ki ni wooteel bis daal ku jàq woo ko moom sëñ Fallu waa jàngoog Cheikh Mahmadul Fadal fadlun asimun sariifun faarisun fasilun mbàkkeng bu soobe la kookuy sëñ Fallu kon nag bis baa ngoog galas ne mi ngi ciy woo ñëpp ñu ñëwoon fii nag ci Ndindy Actu Ndindy Actu nag duma ko bàyyee tudd ndax xibaar yu wóor ak si yàlla tu wóor fii rek la am ci ndina ak nag mu sëñ Fallu kon le 18 janvier bis ba ngoog na ko ñëpp waaj wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu